tam di leen sargal bu baax a di wax ne ñun ñu fi toog ni ñëpp kenn ku nekk mën naa wax sa turu morom parce que ñun ñëpp ñoo dundandoo li xew Wolof na dafa am lu wax la mu saf ka ko macc xam te donc ñun ñi ñëpp macc nañ ko yaakaar moo tax ñu sañ a toog di wax ci mbir mi tey loo xamante li ñuy wax làmbatuñ ko yéexuñu ko loo xamante ni lu ñu xam ne lu ñu dund ci la wax tey gannaaw bu loolu weesoo damay nuyu tous les patriotes ci diaspora bi ak territoire Sénégal bàyyi ma kenn muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw maanaam li ñu fi indi tey mooy li ñu fi daan indi li ñu fi daan dajale rek moo ñu fi indi ba tey jeexu bi ñu commencé depuis deux mille vingt et ba léegi jubluwaay bi du dara lu dul xoqatal tiital ñii bu ñu defee li parce que ñoom lañ ci buggoon depuis deux mille vingt et ba léegi ñoom amaguñ ko ba tey. te duñ ko am bokk ba mukk nag mooy xoqatal ba nga xamante ni lépp lu ñu yëngal ab lépp lu ñuy bëgg a def ci seeni ñaawteef ñi reculer ci wala ñi am ci loo xamante ni dañ ciy tiit te loolu jubluwaay bi ñu ne ci kaso gi fu toll nii bu ñu génnoon tey lu raw lii taxawaay bii ñuy taxaw tey bu ko raw la taxawee kon donc ma di leen wax ne ñoom ñi jël loolu def ko comme mission damay leen di wax ne ñu reculer dal ci ginnaaw xam ne lii ñu jublu ak lii ñu bëgg duñ ko ci am bu solo suñu beneen bi ñu topp may wax ak ndaw Sénégal muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw di leen fàttali benn baat bu gàtt rek boo xamante ni Côte d'Ivoire bi ñu jógee seen élection yi bi Alassane Ouattara defee troisième mandat bi ñu laajee journaliste bi walla ñu laaj Macron daf na leen dañ troisième mandat lan moo tax ngeen bañal ko. réew tel ak réew tel te nangul ko Côte d'Ivoire ñu ne population ba ñoo ko nangu parce que manifesté wuñ population bi jóguñu loolu moo tax ñoom loolu la ñu am comme alibi moo tax ñu validel Alassane Ouattara troisième candidature am ma di leen wax ne leen jubluwaay bi ñoom ñetti réew yi ñoo ko bokkoon muy Guinée muy Côte d'Ivoire muy Sénégal Macky Sall nag li tax bii jafe ci moom ñee dañ koo njëkk a tëb xam nga naxe boo ci amee mbubb am ci tubay daal la dala ciy ñoom dañ ñoo nax Macky Sall moo mujjee dàll yi ñeent kee am na ci mbaxana te jiwu ko kii am ci dàll te jiwu ko léegi nag kii moo ci desoon moo tax lii dina xaw doy waar moom lii du lu ñu bett ñoom ñett ñoo ko waxtaanee ñetti président yooyu noonu ñoo fi nekkal France lii lu bett kenn bu yeboo ñu xam ne lii président Ousmane Sonko yàgg dañu ko wax Macky Sall du ko ñuy dialoguel Macky Sall du ko ñuy waxtaanal Macky Sall du ñuy naxanteel ñun suñu jotaay bii tey li ci waroon nag bu ñu jógee bu ñu jógee fii tey ci jotaay bii li ñu war a dëgbal mooy jublu ci terrain bi dem campagne yi nañu jublu ci terrain bi dem campagne yi buñ ñu détourné li ñu war a def ñoom ñu ngi koy def parce que boo à partir de minuit une heure Mermoz commencé ñoo ngay dugg ko génn di nekk ci la ñu war a nekk ñoom ñun nag li ñu war a def ak li ñu war a wax nañ ci nekk mooy nañu dem campagne yi parce que yoon moo ñu ko may droit moo ñu ko may yoon ñu ko may droit moo ñu ko may te gisaguñu dara lu di lu lu lu teggi li ñu li ñuy may ne dem leen ngeen campagne da ngeen war a def lii ñuy def baax na lool rafet na trop waaye ñun dañu war a dépasser lii dañu war a dugg ci terrain bi wax ak góor ñi wax ak jigéen ñi wax ak ndaw ñi dañuy dem élection élection la ñu wax ñun dañuy campagne yi parce que boo leen xoolee terrain bi pire mu nga ca la war a nekk ñun bu ñu détourné Ousmane Sonko dina génn détourné Macky Sall mi fa yóbbuwoon Ousmane Sonko yóbbu fa keneen ku dul man man mii lu ma jàppee bi ma taxawee procureur moo ne ma juge bi ba xam jàll moo ne ma maam paate li ma gis ci dossier bii de ak liñ la bindal mooy de wax dëgg yàlla yow da nga doon ñëw tribunal pour seetaan si procès beneen bi ci topp mooy Pastef ma ne leen 1000 pour cent ma loolu yaa da koy da nga koy dëggal ma ne ko dëggal naa 1000 pour cent laa Pastef mu ne ma wax dëgg de gisuma wax dëgg yàlla bu fekkee nag sama kilifa wax na. muy procureur aw ma lu dul placé la nee na naa la placé ma ne ko bisimilah lii la ma yóbbu biñ may bàyyi itam lii lañ ma wax defoo dara demal nga ñibbi waaw dama leen laaj te ñii ñëpp toog fi li ci ëpp ak ña fa des baat bii ba dégg moom la ñuy dégg gannaaw bu ñu ma defee loolu lépp lu ma yoroon ci biti dox nañ sama gannaaw ci coo xamante ni maanaam dafa am loo xamante ni dafa reelu parce que jubluwaay bi duñ ko am duñ ko mos a am ci àdduna moo tax may wax ndaw ñi gis nga journée de la femme saint ñun dafa war a xewi suñu réew actuellement ku gi ñu toll amul benn Sénégal bu war a toog di ree ree dafa war a xewi ci réew mi parce que fi ñu toll ñun dañu toll foo xamante ni adduna bi yëpp yëpp yëpp actuellement nii ñun dañ ne ñun ana Sénégal ana Sénégalais yi parce que man dama rus lu mel nii ma lay wax dama am sama benn frère boo xam ne bon maire la bi mbir mi amee subitement daf ma woo bi ñu nekkee ensemble di génne gendarmerie yi daf ma woo quoi maire la quoi muy sama mag sama frère bi ma wooyee ree ma ne ko je rappelle plus tard bi ma toogee ba dal ma woo ko ne ko mon frère mu ne ah, ma ma ne ko mais tey ma ne ko li xew tey tremblement de terre la li gis tey kenn waru ko ree am ma ne ko man dama rus ni ma ruusee gàcce gi ma am tey gàcce gu toll noonu war a am après revenir na quoi ñëw na après mu toog conscience am xam naa wax ak moom mu dal bi ma ko woowaatee après am na nu mu waxaatee ak man moment boobu man man mi nga xamante ni. yoruma benn ndomba tànk ci dëkk bi gis lii doon raam di ñëw ni ko président Ousmane Sonko doon waxee képp ku toog yaakaar ne lii dal sa kaw dana raam ba fekk la sa biir sama sa bi dugg naan ancien lan la mbër la woon lan la lu ko gaañ biir këram la toog dafa manifesté wu lu ko fekk faat ko mu xam am na wala amul dañ ne daal mag la woon lacromose bi dugg na biir kër gi doxee na ca xam naa dafa fàtt faatu na kooku est-ce que moom xalaatoon na bis bii dana am ba lii di ko ci fekk ak ak njabootam moo tax ku jàpp ne lii bokkoo ci baat boobu président yàgg na leen ko wax ku jàppu ne mbir mi bokkoo ci danaa sa biir salon bu soobee si borom moo tax may woo góor jigéen mag ndaw jóg leen Macky Sall du ku ñuy waxal mu ngi defaru mu ngi waaj nañ la jóg campagne yi campagne lañ war a def nañu jóg campagne yi maa ngi woo tous les sénégalais période bi bu ñu ci tolloo jën amatul géej gi jaay nañ jaay nañ jéeri ji amul lu ñu ndaw ji desee jigéen ñi nañu jóg ay yaay lañu nañu jóg jiitu ndaw ñu topp ci jigéen ñi yaay jóg leen ndaw ñu topp ci ñu bokk xeex lii ci réew mi mu jógee fii xam nga dama leen wax benn mbir ku yaakaar ne lii dana yomb yéen ñi toog ba tey yaakaar ne lii dana yomb ci yéen Ousmane Sonko na leen mbir boo ko toppee ba muy waaj a jeex day mel ni tey la gën a métti wala tey tey la sa ko commencé mais boo posé tuuti rek mbir ma yem fa ba di leen xamal ne nañu leen jóg nañu leen jóg. def li ñu war a def parce que bu ñu jógul ñun force de l'ordre yi ñu ci baree baree bare ñun la ñu àndal mais bu ñu jógee en masse ñoom du ñu sañ dara benn benn boo xamante ni ñoo nekk ci biir ñoo xamante ni soi-disant nervi ñooy def ñaawte fii mais du benn force de l'ordre buy def ñaawte fii mel nii parce que jàngaluñu leen ko xamuñu ko parce que ñoom itam vraiment ni ñu bëggee réew mi yaakaar naa nu ko raw la ñu war a bëggee réew mi moo tax lii ma leen di wax jóg leen ñu dugg ci koñ bi place de la nation fu mën a jaar ci réew mi jaar fa deugal sa campagne woné sa bop ci campagne bi campagne présidentielle parce que nous, seen carte yi jëli nañ seen carte yi jëli nañ ñu ci am parce que conseil bi dina délibérer inshallah, d'ici demain ou après demain inshallah, plus tard bu savez suñu borom amul fu ñuy jaar prof ndol bu ñuy jaar ba li hein ah, duñu ko deugal moy tax ma xamal ñu wax élection de seen pièce buñ ci ma di ko wax tous les patriotes patriotes, bu ñu bu nako yeggé moromam muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw heure bi dafa war a fekk ñu dajaloo dem jébal suñu bopp ci commissariat yi yoruñu yet yoruñu xeer yoon te dañuy takk suñu loxo ñun ñëpp def ay bloc dem ci commissariat yi jébali suñu bopp looloo fi def ñun li ñuy dund jaama ko tane ñun fii ñu toll nii li ñuy dund jaama ko tane dund ñu dara lu ñu xam ci na parce que am réew bu ñu demee ba réew mi toll bi man fekkee naa ci Abdou Diouf Ablaye Wade ba muy def marche Colombe maa nga ca kaw otoom mu takk biritale bi ma ànd ak moom mu ko wala ñemewu ko ma ne ko ñemewu ko Macky Sall mii avant muy yegg si fii seet si na ma man ak moom waxtaan nañ bi ñuy rey Mamadou Diop 2011 2012 sama tànk yi la sedde sama tànk yi la sedde waaw kon lii may xeex nii duma ci gan lii may xeex duma ci gan day dëgg joo xamante ni jaamu yàlla raw lii jaamu yàlla raw lii bu ma déggee ñu naan kilifa yi nañu wax gis nga yéen ñii yéenay kilifa yi ñii ñooy kilifa yi kilifa weesul nga bëgg sa réew bëgg lu baax bañ lu bon kilifa weesuwul loolu te gis nga tourna tournoi bii bu ñu ko dépassé di ngeen gis koo xamante day tëdd këram di fayee ko comme ni ko Xaddaafi doon doxale ni fi doon def li bi lu ko raw ak ressources yu raw yooyu am na Sénégal maa leen di wax libi si ni tey Sénégal li fi am lépp ci ressource moo tax ñi seet bakkani la ci teg du yomb ci ñoom du yomb ci ñun waaye mënta yomb ci ñoom nañ leen jóg ñu takk suñu ndigg taxaw nañu campagne yi jóg leen ñu campagne yi lii ñuy def nii point yi baax na jotaay yi baax na mais nañ lañu campagne yi dañuy def élection nañ leen campagne yi dañuy def élection gis nga ñii benn groupe bu ndaw a ndaw a a ndaw ñoo ci des ay màgget yoo xamante ne boo leen xoolee seen kanam yi nekkatuñu sax ay nit boo leen xoolee am ne ñuy tàggoo na seen seen sago boo leen xoolee ci plateau yi xam ko amatuñuy waxkat képp ku bokk ci ñoom tey dese tuuti tuuti rek loo xamante ni suñu borom def na ko ci yow ci xol tuuti rek ci conscience ah dootoo wax te xam nga ne lii lu jeex la te xam ne lii lu dëkk yoon